mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay cent vingt et un ci suratul araf qaalu amanna bi rabbil alamin ay téeméer ak ñaar fukk ak benn ci suratul araf إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy dajale ñu ko neex ca la ko neex mu wërsëgal ñu ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàngub téeréem ay ngëneel yu bari yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam wax ko ca yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ngëneel yooyu yëpp donte ne it wax bi fépp fu mu nar a yegg ñooñu tamit yal na yàlla boole leen ñeñ seen xol aju ca néegu yàlla ya ñuy jëriñoo ca la fay jóge di ñaanal it mbokk yi dox suñu diggante ak ñoom ba ñu mën caa jot kon tey mooy fukki fan ak ñeent ci li ñuy tuddee weeru safar ci atum 1440 di tombeeg 24 octobre 2018 incha allah kon ñu fas yéene jël suñu bind bu njëkk bu dee Cheikh Ousmane pare na incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu borom mu ni njabar yi ñëwoon ngir jàkkaarloog Muusa gannaaw ba ñu rotee sujud qaalu amanna bi rabbil alamin dañ na ñun de gëm nañu ci borom mbindaafon yi rabbi Muusa wa Haarun kooku nga xam ne mooy borom Muusa ak Haarun qaala firawnu amantum bihi qabla an aasana lakum firawn ne na ah gëm ngeen ci moom jiitu ma leen di jox ndigal inna haada la makrum makartumuuhu fi lmadina lii day pexe la boo xam ne yéena ko pexe ci biir dëkk bi li tuxriju minha ahlaha ngiree ngeen mën a génne njabootug dëkk bi ci seenub dëkk waaye fa sawfa taalamuun xel sa ngeen a doon ñuy xam la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf dana daggate seen loxo yi ak seen tànk yi ci jàllawle ñu noonu ci juyoo summa la usallibannakum ajmain gannaaw ba danaa leen daaj yéen ñépp mooy ca dati tàndarma ya mboole seen qaalu inna ila rabbina munqalibun njabarkat yee na ko ñun day ci suñu borom yàlla la ñuy dellu wa ma tanqimu minna nekkoo it di fayu ci ñun di ayibal ci ñun illa an amanna bi ayaati rabbina lu dul na ñun dañoo gëm suñu aayee borom rek lamma jaatna ba ñu aaya yooyee dikkale rabbana afriq alayna sabra ay yàlla sottil ci ñun ak muñ wa tawaffana muslimin ca nga faat ñu ñu doon ñoo xam ñu la jébbalul la mbokk bu ngeen gisee ni bis yi di gaawe biñ fi mujjee àllarba ji di ñëw bii paase cay wax rek gaa yi ni ñuy dagge seen épisode yi ngir mën a téye suñu xelu njaboot gi ak léegi ni mu gaawee daje bu rëy firawna woote na ko indi ay njabaram la ca gën a néew borom xam-xam yi wax ko mooy juróom-ñaar fukk lañu woon ñu jàkkaarloog Muusa indi njabar goo xam ni suñu borom moo ko saxal ci it jullit war koo gëm nee na njabar nañ bëtu nit ña benn ngoog tiital nañu leen ñaara ngoog indi nañ njabar gu màgg muy ñetta ngoog ca njabar kon lu am la lu doomu aadama mën a jàng ba koy def di won moroomi doomu aadamam lu bokkul ak lay dëgg Muusa sànni naw yatam yat wa ramassé mboolem lu gaa yi indi woon ci njabar njabarkat yi ñu sànni leen ca mooy ñu sànnee ko seen bopp dañoo mel na ñu ñu sànni ndax nañ gisandoo dëgg ñoom ñépp a sujootandoo bi ñu sujootee ñu daldi na ñun dey gëm nañ borom bi ndaafon yi ki nga xam ne mooy borom Muusa ak Haarun ndax booba kat fekkoon na firawna kàccoor bu mag ba comme ni ngeen ko dégge léegi ci njàngum timis mi mu ni ana rabbukumul aala ay yéen nit ñi man may seen buur bi gën a màgg bi ngeen di war a jaam njabar yi ñu ne ñun gëm nañ buuru Muusa ak Haarun borom Muusa ak Haarun firawna ne bërët ci tribune bi mu taxawoon fekk na mboolem ku mën a ñëw ca Égypte mi nga noonu ca misra dajale nañ leen mbooloo mu kenn xamul nu mu toll mu ne bëreet daal di ne ah gëm ngeen Moussa avant ma leen di jox ndigal ci ngeen gëm ko gis ngeen mbokk loolu lañ cay jëkk a déggee mooy Firawna jàpp ne ne ngëm mënees na ko jox nit pour mu gëm waaye mbokk doomu aadama kenn du ko jox ndigal pour mu gëm gëm moom yàlla subhanahu wa taala moo koy def kim dugg ci xolam it kenn mënu ko caa génne looloo tax moom ci boppam soxnaam su muy fanaanal ci kaw lalam gëm na Muusa te mënu ci dara waaye wax jooju mu wax ndax gëm ngeen te joxuma leen ci ndigal mbokk nañu xam ne wàllu diine kenn dong ci am ndigal muy suñu boroom galwaay bàyyi leen xel loolu ndigal ci yàlla lay jóge suñu borom mu ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diini maa lam ya'zan bihi Allah ndax nit ñi am nañu yeneen i bokkaalekat ñu leen di tëralal yeneen façon diine nu ñuy jaamoo yàlla ca yàlla joxewu ci ndigal comme ni Firawna wax Firawna da koo wax ci tooñ suñu borom yàlla wax ko ci yeyoo ndax moo bind ñépp kon nag alaa lahul xalqu wal amr moom mi bind rek am joxe droit ndigal looloo tax ba jullit amul droit gëm lu dul la ko yàlla gëm loo amul droit jaamoo yàlla lu dul la ko yàlla sant mu jaamoo ko yàlla moomu kam joxoon ay ndigalam mooy suñu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndigal yooyu mu indi woon mu war koo jottali xeet bi ñépp ci am ndigal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne ba mu fi jógee sallallahu alayhi wa sallam ñu dox ay siècle ay siècle ñett ñeenti téeméeri juróomi téeméeri at bal lu jógee juróom benn téeméeri at am na yeneen yuy feeñ ci diini lislaam mooy Cheikh Ousmane mii kat am na droit xëy créer benn wirdam ne wirdi wii nag képp ku amul sama ndigal wala ku ma jox ndigal mu jox la ndigal soo koy jëfandikoo doo ci am benn tuyaaba Bilal Cam dagge fële créer moom it bosam ne saa bos bii day man it képp koo xam ne jotu ci sama ndigal wala ku ma jox ndigal mu jox ko ndigal doo ci am tuyaaba mbokk loolu dafa dab lislaam waaye suñu borom yàlla moo ñuy wax uzkurullaha zikran kasira tudd leen yàlla moo ñuy wax julli leen ci yonent bi alayhi salaam moo ñuy wax istaghfiru rabbakum loolee nga xam ne jaarale woon na ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu teg ci ne wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu lépp la yonent yàlla indi ay yéen jaam yi jox naa leen ndigal yéen ñépp ngeen jëfe ko lépp la yonent yàlla tere ah yéen jaam yi jox naa leen ndigal yéen ñépp ngeen bàyyi ko looloo tax keroog ba fuqara yi dajee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ñun kat borom alal yi jihaad ña nga ca ànd ak ñoom ak màkka ña nga ànd ak ñoom bu ñu leen jiitu ca jàkka ja te ñoom ñi ngi yor seen alal di ko joxe guddeeg bëccëg ñun amuñu dara loolu yow mi yàlla yónni ñii raw nañu de yonent bi alayhi salaam ne kaay ma jox leen benn mbir bu ngeen koy jëfee ñi leen rawoon da ngeen leen dab ca kenn du leen dab lu dul ko def li ngeen di def su ngeen julleetee ba pare wax leen subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ngeen tëje ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir fuqara yu jóg kontaan suñ jullee ba pare ku nekk dugg sa roq di def subhanallah borom alal yi di gëstu ba ne waaw ñu lu ñuy def nii ba mujj ñoom it ñu xam ko bu ñu jullee ci jàkka ji ñéppay defandoo subhanallah alhamdulilah allah akbar fuqara yi defaat délégation ñëw ci yonent bi alei salatu wasalaam ne ko secret ba ñu joxoon kat seen na borom alal yaa ngi koy def mu ne ah loolu nag mënuma ci dara mbir lu yàlla la moo ko jox ku ko neex waaw lu téye woon fuqara yi ne garaawul ñun yonent bi ñu jox ndigal ñee nag amuñu ndigal seen sikkar yi du leen jëriñ dara ndax amuñu ndigal ñun yeneen ci bee ñu jox ndigal lu tax fuqaraay waxuñu loolu loolu moo tax mbokk walaay léeg-léeg nga dégg ko benn waay boo xam ne nga xëy di wax laa ilaha illallah lu mat téeméer astaghfirullah azim lazi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum di def ay salatu ala nabi benn waay na ko waa mais yow ku la jox ndigal kan moo la jox ndigal lu dul yàlla ak yonent bi ci téeram ku tedd bi ñu ne li day def su li ngay def baaxul foog nga jot ndigal ala kulli xaal ñu ngi leen di wax di leen répété mbokk julit ñi jaamu yàlla lu aju ca aj makka koor julli zikr sarxe lu mën a doon kenn moo koy yoonal suñu borom jalla wa ala kenn moo koy jottali suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam lu mu xis ba jottali ñépp a ci bokk mbir mi kay mooy nga xam wala xamuloo waaye keroog ba nga xamee lii ci yonent bi la jóge keroog nga ci am ndigal lépp nag loo xam ne dañ koo créé gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci ndigal ak ñàkk ca am ndigal moo yem man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd amul lenn looy créé gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu mu taaru taaru say bët lu dul yàlla dala koy delloo almuhim kon firaw na nee na lu tax ngeen di gëm ca yeexa wóoma ndigal da ngi noonu yéen da ngeen comploté ak Moussa ne léegi nañ dem bu demee ci kanamu mbooloo mi ñun ñu def petit njabar yow Moussa nga def grand njabar bu ko defee nga daaneel ñu ñu xam ne yow yaay kilifa gi ah loolu ngeen comploté seen biir ca mbokk loolu lañ tuddee guerre des médias mooy en général état heure bu ñu bëggee tuumaal ku ñuy tudd opposant wala ku leen jaaxal fokk ñu tuumaal ko taqal ko lu nekk waaye yow Firawna yaa dem dajale sa njabari bopp am déet Moussa dix ans ngi nekkul ci dëkk bi ku mel noonu naka lay mën a comploter ak njabar yi waaye bu naa baax na da ngeen di comploter pour daañu sama nguur gi xel sa ngeen a xam kenn par kenn dinaa leen jël dagg seen loxo ndeyjoor dagg seen tànk càmmoñ bu doon te ne dama yem ci loolu déedéet danaa leen daaj ci tànta daatu tàndarma yi bu ko defee ngeen dee fa déegu yeex ndax moo ko xam ngeen nit ki tiim ko cor ko jaasi mu dee dee na waaye xam nga loolu dagg loxo ndey jox dagg tànk càmmoon daaj la ci daata tàndarma yi nga mën faa def cinq jours une semaine doog a dee loolee mu ne danaa leen ko def pour ngeen nekk exemple ba keneen ku dul yéen du ñemee feeñal ngëmam mais lii bi nga xamee ne wax nañ ko njabar yi daal di koy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaakaar naa yi ñëpp man ngeen ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ñu moom ci yàlla la ñuy dellu moo tax ñu ne inna ila rabbina munqalibun firawna ñun ñii ak yow mii ak lu mu yàgg-yàgg bis ñun ñëpp daañu mas a dee daañu mas a taxaw ci kanamu borom bi mu atte ñu am déet na doon yaa ñu rey ak reyuñu ca mbokk dee moom kenn du ko rëcc ak lu la mën a rey ëllëg dellu ci kanamu borom bi kenn du rëcc ak lu la mën a rey inna ila rabbina munqalibun waaw firawna ñun lan nga ñu ayibal ban défaut lañ def lu dul ne dañoo gëm suñu aaye borom bi ñu aaye yi dikkalee loolu rek da nga ñu mën a critiquer mbokk lii suñu boroom mi ngi koy nettali yonent bi alayhi salaam jamono bi mu nekkee makka treize ans yooyu mu fa def sahabaam yi ñu ngi leen di duma ñu ngi leen di toroxal ñu ngi leen di mettital jàpp leen ci façon mbugal yu nekk suñu boroom nag di leen xamal ne ñi leen fi jiite woon it coono yi lañ dajoon ca kat amul lenn loo xam ne moo taxal ñu leen koy teg lu dul seen ngëm yàlla looloo tax xatta njabar yi lu ñu wax ay yàlla sottil ci ñun ak muñ bañ mën a dikku nattu firawna yi ba bu ñuy dee ñu dee yàlla ngëm lii ba ko yàlla nettalee yonent bi mu jàngal ko sahabatul kiram noonu la ko sahaba yi gëme woon yéen ndaw ñi bi ngeen jàngoon histoire Bilal ngeen jàngi histoire Xaba ngeen jàngi histoire sahabatul kiram lañ daj waaye nga xool yàlla mi dogal lu ko neex firawna rey na ay njabaram ngir laa ilaha illallah mais diini lislaam kan la yàlla jëkk a seetaan ñu rey ko ci mooy benn jigéen bu ñu wax sumayya sumayya zawji asir yi nga xam ne mooy ummu amar ah ibnu yasir moom la abu jahal moomoon say-say bu bon ba yeew ko ne ko ah weddi nga sama xërëm yi dem topp yàlla yi muhammad di ko mbugal suba di ko mbugal ngoon ba benn bis mu ñëw ak xeejam na ko yow sonn naa say mbir da ngay weddi yàlla yi muhammad gëm sama yàlla am loo am lu nekk ci yow soxna si ne ko laa ilaha illallah rek mu bojj ko xeej bi gis ngeen ci kanamu sahaaba yi rasul sallallahu alayhi wasallam danaan fekk ñu yeew leen lan lay wax sabaran ala yasir inna mawidakumul janna muñ leen yeen famille yasir ñi ngi yow sumayya muy soxna si yow amaar yow yow yasir muy baay bi yow amaar muy doom ci mbugal guddi mbugal bëccëg yonent bi lu mu leen wax muñ leen ah munu lu ma leen xam naa daal sama yéen àddina lay daje ak yéen lii kon mbokk mooy la nga xam ne yow julit da ngay ñaan yàlla aafiya yal na yàlla defal ñu aafiya waaye nag bu àdduna yàgg mukk ba ab kaso tax ba ay mbugal tax ba dàq service tax ba fasala ci sëb sëy tax ba lu mën a doon tax ngay jël diine yàlla ji di ko jënd àdduna ak lu mën a doon yal na yàlla sotti ci ñu muñ ba bis bu ñuy dee ñu dee yàlla jébbalul ko Cheikh Ousmane وقال الملأ من قوم فرعون آتنا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا فيها قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض
تعالى مني وقال الملأ من قوم فرعون noonu la waxe woon notaabal ya bokk ca xeetu firawna ba atazaru muusa wa qawmahu li yufsidu fi l ard ndax da ngay bàyyi muusa ak xeetam bi ñuy nekk di yàq ci kaw suuf wa yazaraka wa alihatak ñu bàyyi la yàq sa yàlla yi qaala sa nuqattilu abnaahum wa nastaxyi nisaahum mu ne ñun day dañu rey seen doom yu góor ya ca bàyyi dundal seen doom yu jigéen ya wa inna fawqahum qahiroon ca ñun day daañ nekk ci seen kaw doon aji ñu leen not qaala muusa li qawmihi istainu billahi wasbiru muusa ne xeetam ba dimbinikoo leen ci yàlla ca ngeen muñ inna al arda lillah suuf bi suufas yàlla la yurisuha man yashaau min ibadi moo koy donnaloo kum neex ci ay jaamam wala aqibatu lil muttaqin mën gu rafet nag yàlla nga koy jagleel ña ragal yàlla qaalu uzina min min qabli an taatiyana wa min baadi ma jitana ñu ne ko cay Muusa ñun ñi ngi ñu doon lor jiitu nga ñuy dikkal ak gannaaw ba nga xamee ni ñëwal nga ñu qaala asa rabbukum an yahlika aduwakum muusa ne mën na am seen borom yàlla day alak seenub noon wa yastaxlifakum fi l ard mu def leen ay kuutaay ci kaw suuf fa yanzura kayfa taamaluun mu xool ana naka ngeen di jëfe wa laqad axadna ala firawna bi sinina wa naqsin min alsamarat noon it lañ jàppe woon njabootuk firawna ga ca la nga xam ne mooy ay maral siniin mooy at yoo xam ne taw amu ca wa naqsin min alsamarat ak wàññi gan doon wàññi seen meññente ya laallahum yazakkaruun ngir ñu doon ñuy fàttaliku mi ngi noonu mbokk julit soo delloo sunu maam yi dañ naan buur aayul dak yaa aay firawna gis nañu ne def na jëfam ju ñaaw jooju dajale na njabar yépp rey leen léegi nag bàyyi na Moussa notable na ko waa Firawna waaw léegi nag moom Moussa ak xeetam ana ban dogal ngay jël ci ñoom da nga leen di bàyyi ñu bañ a jaamu sa yàlla yi nekk di yàq ci kaw suuf yàq ci kaw suuf lan lañ ci jublu woon mooy di jaamu yàlla mi nga xam ne mooy borom bi naa fan yi bàyyi yàlla yi Firawna ah léegi yow luy sa xalaat ci loolu Firawna ne leen garaawul léegi nañu reprendre lañ doon def bu njëkk mooy bépp doom bu góor bu judd ci ñoom nañ ko rendi bépp doom bu jigéen ñu jël ko yóbbu suñuy chantier mu ñuy liggéeyal su ko defee du ñu am kàttan bay révolter suñu kaw loolu mbokk dañ ci gis natt bu rëy bu yàlla subhanahu wa taala tegoon bani israil lu jiitu it mooy lu tax firawna jógul ne day rey Muusa moom ci boppam firawna ay njabaram tiitaloon nañ ko ci ne Muusa mii day boo muytul sa bakkan ci ci loxoom lay des loolu tax firawna mësul xalaat jóg rey Muusa boo delloo ca Xaafir mi ngi wax notable yi zaruni aqtulu Muusa bàyyi leen ma ma rey Muusa waaye mbokk boo ko bëggoon a rey du wax bàyyi leen ma day wax rek rey leen ko mais xamoon na ne ne kii ba muytul moo koy rey moo tax daawul jël li ñuy tuddee imprudence mooy daawul jël ñàkk a matu ba naan day attaqué Muusa alayhi salaam loolu tax mu yem ci njaboot gi rek looloo tax bis bu mu jógee nag dogu ci ne day rey Muusa keroog la ko yàlla alak gis ngeen keroog moom la ko yàlla alak loolu kon moo tax mu ne nañu rey seeni doom waaye mbokk loolu xoolal ndax mettiwul bani Israil ñoo gën ci ñi yàlla bind ci jamono jooju yàlla nattoo leen 40 ans 40 ans mooy at bi Moussa juddoo ba baa yàlla di ko yónni benn doom bu góor bu juddu ñu rendi loolu lañ doon def au début mujj gi ñu ne ko mais kon bu yàggee duñu am ñu ñu liggéeyal ñu ne kon nañu rendi at bi beneen at ñu bàyyi bu déwénee ñu rendi loolu ñu koy def ba Moussa ñëw léegi Firawna reprendre loolu encore looloo tax Moussa bi Firawna waxee di mu ne ay yenn saw xeet dimbini koo leen ci yàlla ca ngeen muñ ca mbokki jullit mi ngi noonu ab nattu dañ des koy muñ natt bu bawoo ci yàlla soo ko muñee muñ gu rafet dana la ñeel yiw àdduna ak àllaaxira te bokk na natt bi gën a rëy doom ju faatu te it xam ngeen ne juróomi doom yu faatu moo gën a woyof sa benn doom bu ñu rey mi ngi noonu mi ngi noonu juróomi doom yàlla faat moo gën a woyof sa benn doom bu ñu rey loolu ay natt la mu ne leen na xam leen ni suuf bi yàlla moo ko moom moo koy doonule ku ko neex ci ay jaamam te mooy firawna nguuram gi nattu la bu ko yàlla nattu lii ngeen nekke nattu la bu leen yàlla nattu waaye mujj gu rafet ñi ñi ragal yàlla rek ñoo koy moom te loolu it nga la waaye yóbbal leen ko foo mën a nekk ci àdduna xamal ne mujj gu rafet ñi ragal yàlla ñoo koy moom ñu ne ko Moussa ñun avant ngay ñëw ñu ngi ñu doon lor ñun ñëpp ñuy ñaan yal na la yàlla indi yal na la yàlla indi ay yonent bi leen war a xettali nga ñëw encore lor yi mi ngi gën a tar Moussa ne leen ah sama xeet xam leen ni su neexee yàlla day mu alak seen noon heure bu ko neexee indi leen jox leen yéen ngeen yor nguuru kaw suuf mu wóotal leen ci kaw suuf ngiree mu xool naka ngeen di jëfe ca loolu it la ca Moussa doon doon doon wax mbokk doomu aadama bi natt bu la yàlla teg muñ ko xamoo lu tax gis nga bani Israil jamono bi ñuy dund jafe-jafe yi ñoom ñépp a déggaloon yàlla déggal yonent yàlla Muusa ba leen yàlla musalee ci seeni noon ba jox leen seen autonomie bopp seen nguurug bopp ca lañu commencé bokkaale seen borom ca lañu commencé lu Muusa wax ñu weddi ko loolu it kon moo tax Muusa ne leen ah su neexoon yàlla mu alak noonu jox leen yéen kàttan di xool naka ngeen di jëfee te loolu it da ngay gis ne sunu réew yi bëri ci jullit it ak a neexoon muy réew yu ay borom yi xam-xamu diine jiite mbokk tubaab bi jóge na ca fam dëkk colonise ñu di siècle jàpp sunu maam yi di leen jaay comme ni ñuy jaay xar yeeg mbaam yi colonise ñu luy alal ñu jël di def ci ñun lu ko ne lu leen neex ba yàlla dogal ñu may ñu ay indépendance ñu ne ñoo moom suñu bopp ak a neexoon ñu jëloon ñu nit delloo suñu bopp suñu borom réew mi ñu xam ne ñun ay jurit lañu ñee dañu ñëwoon noot ñu ñu jël réew mi teg ko ci loi yi neex yàlla fas yéene koo doxale ji neex yàlla mais malheureusement pays yooyu yépp da ngay gis tubaab ba leen nootoon lañ jël seenu doxalin continuer saxal ko moo nekk ca parlement ya moo nekk palais de justice moo nekk ca règlement armé ya moo nekk partout partout partout et pourtant sunu borom moo xam bani Israël su neexee yàlla mu alak seen nen yóbbu leen yéen mu jox leen pouvoir xool ni ngeen di defee loolu kon ku nekk ci ñun war caa bàyyi xel léegi nag borom baa ngi commencé di indi ab yaram ci kaw Firawna ki notable am lam leen jëkkee mooy indil leen ak maral ay at mënuñoo tawlu loolu ñu ñëw ci Moussa ne ko Moussa ñaanal Moussa ñaan yàlla indi ab tawam suñu borom teg ca ay at yoo xam ne day taw mais duñu am dara ci ay meññeent ca loolu it mbokk di mbir mu ñuy remarqué ba tey nawet ci loxo yàlla la nekk moo koy sotti fu ko neex déclaré te fu ko neex meññeent ci loxo yàlla la nekk ñaari nawet daañu yem exactement ni ñu tawee ngay gis benn baykat boo xam ne toolam am na fa lu jege ñaari tonnes ci dugub nga gis at mi amul sax cinq genn wàllu tonne et pourtant taw yooyu yem lu waral loolu mooy yàlla miy barkeel ay ndoxam mooy barkeel tool yi nu mu ko neexee. amma ali firawna yàlla nattu na leen ci ñàkk taw nattu na leen ci ñàkk meññeent lii lépp suñu borom ne ngiree ñu fàttali ko xam ne mbir yi ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo firawna nekkul ci loxo ay notable am laallahum yazakkaruun mi ngi noonu Cheikh Moussa Cheikh Ousmane
آيات مفصلات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل barakallahu fiik suñu borom mu ni fa ida jaatuhumul xasana heure bu leen dikkalee xéewal qaalu lana haasi ñu ne lii moom yeyoo nañu ko ñoo ko moom yeyoo nañu ko wa in tusibuhum sayyi'a bu leen laalee la nga xam ne lu ñaaw la yatayyaru bi muusa wa man ma'a ñuy nekk di gaaflu ci muusa ak ña ànd ak moom ala déedéet innama tairuhum inda allah seen gaaf ga kay ma nga nekk ca yàlla walakin aksaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nekkuñu di xam wa qaalu mahma taatina bihi min ayatin li tasharana biha ñu ne ko gis nga Muusa ak loo ñu mën a indil ci ay kawtéef ngir njabe reñu ko fa ma nahnu laka bi muminin du ñu nekk mukk di la gëm fa arsalna alayhim tuufaan noonu lañu yónnee ci ñoom mbënd ma te mooy taw yoo xam ni dem na ba ànd ak ndoxi dex ya fees dell seen dëkk ba wal jaraad yónni ci ñoom njéeréer ya wal xummal yónni ci ñoom la nga xam ne mooy teeñ ya am na ñu koy tuddee wa- wang ya wa dafaadia yónni ci ñoom mbott ya wa dama yónni ci ñoom daraj ya ayatin mufassalaat yi yépp nekk ay aaya ay kawteef yu ñu teqale fastakbaru wa kaanu qawman mujrimin ñu rëy rëy lu nekk xeet boo xam ne ay kàccoor yi gën a topp lañu wa lamma waqaa alayhim rijzu ba mu demee ba tàbbi ci ñoom la nga xam ne mooy sànjima di mbugul mu tarma qaalu ya muusa ñu ne ko ay yow muusa udu lana rabbak waay wol ñu sa boroom bi ma ahida indak ci li mu fasante kóllëre ak yow diggante ak yow la in kashafta anna rijsa boo dindee ci ñun mbugalum sobe mii dal suñu kaw de la nu'minanna lak fokk daañ gëm ñeel la wala nursilanna maaka bani israil te daañu yónni ànd ak yow lii nga xam ne mooy bani israil mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne indi na ay nattoom ci bani israil la ca jiitu mooy maral ba ak ñàkk meññeent ma heure bu xéewal dikkee ci ñoom ñu ne lii moom lu ñu yeyoo la heure bu nattu dalee ci ñoom ñu ne bokkoon ma Muusa ak ñi mu àndal ñoo fi nekk di weddi suñu yàlla yi moo tax ba musiba yi yépp dal suñu kaw suñu borom ne déedéet gaaf googu ñuy wax day jógewul ci Muusa waaye gaaf ak yàlla la ca mooy dogal la buy bawoo ci yàlla waaye li ëpp ci nit ñi ñoom xamuñu looloo taxit mbokk xattaa ci biir jullit ñi da nga ci gis ñoo xam ni dañuy gaafulu abdullah ibnu masud ñëw na ci yonent bi alayhi salaam ne ko wa minna unaasun yatatayaruun rasul sallallahu alayhi wasallam ne fala yasuddannakum am na ci ñun de yow mi yàlla yónni ñoo xam ne dañuy yëg ay gaaf yonent bi ne waaye bu mu leen bu mu leen fekk mukk ay bu mu leen tax def li ngeen di def masalan benn waaye day dugal ci boppam ne su ma génnee di wuti dara daje ku góor sama mbir dana baax daje ku jigéen dara lu baax lu bari mi ngi daan ñi ngi ko daan wax ci picc yi moo tax nga gis yata tayyaroon yaa ngi ci dégg baat ko tayyir muy picc ca mooy su ma génnee di dem soo picc bi nga jëkk a dajeel mu naw jëm ndeyjoor ah mbir mi dana baax bu dee tukki baa sox soxna samay labati leneen dana baax ndax picc bi naaw jëm ndeyjoor picc bi naaw jëm càmmoñ ñu naan dañuy dëpp ba beneen tey moom dara du baax mbokk loolu yonent bi alayhi salaam daana wax ne léeg-léeg doomu aadama di ko yëg waaye boo ko yëgee anu lay wax allahuma la xayra illa xayruk wala tayra illa tayruk wala ilaha xayruk yàlla day yiw amul lu dul sa yiw gaaf amul lu dul sa gaaf ay li nga dogal rek mooy am kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul yow loolu la jurit di war a wax amma di seet looy gaaflu da ngay leen da ngay gis xatta ci marché yi ñu jënd ay picc di def nii di sànni ñu ci bëri liñ ci dañ ciy seete picc bi jëmee nii dana baax bu jëmee nii kaza wa kaza loolu mbokk islaam xamut loolu yonent bi alayhi salaam lam ñu jàngaloon képp ku nekk ci benn mbir jublu ca di xamoo ndax looy def wala loo wërta def julil ñaari ràkka soo julee ñaari ràkka nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo sa xam-xam di la dogalloo ci sa kàttan di la ñaan ci say ngëneel yow rek yaa xam man xawma yaa man man mënuma yow yaay ki xam kompa lii ma bëgg a def bu dee dafa gën sama àdduna gën sama alaxira yombalal ma ko dogalal ma ko nga yombalal ma ko ca barkeelal ma ko su dee nag gënul sama àdduna ak sama alaxira soril ma ko ca nga indil ma lu ko gën ca barkeelal ma ko lii la islam xam ci jullit heure bu nekkee ci dëkk kanamu benn problème kon seen gaaf mi ngi ci yàlla waaye xamuñu léegi nag firaw naa ko notable am ñëw na Moussa lii lépp sag njabar la yaa tax ba taw bi wàccul yaa tax ba meññeenti mi amul waaye ak loo ñu mën a njabar njabar njabar du tax mukk ñu gëm la abadan loolu neex nag sëy boo nga def ko suñu borom yàlla ne ma yónni ci ñoom tuufaan yàlla ubbi buntu asamaan ci tuufaan boobu yàlla nga ko jëkk a nattoo xaw mu noonu asamaan di taw guddi di taw bëccëg ba seen dex yi débordé seen kër yépp fees ñu daw ñëw ci Moussa Moussa waaye taw bi nag bu dee moom say sabab mi ngi ci moom waaye ñaanal yàlla bu dee bu dee mën ngaa ñaan yàlla moo la teg moom léegi ñu bàyyi la yàgg ban Israël fu leen neex ngeen jëm ah Moussa ñaan yàlla taw bi arrêté ñu ne kii mooy njabar continué ci lañ nekkoon suñu borom toog ba mu neex ko mu nattoo leen la nga xamee ni nii mooy li ñuy tuddee ay njéeréer bokk njéeréer ci nattu yàlla yi la bokk ñu ngi noonu mag ñi fàttaliku nañ en 1987 début 88 njéeréer yi yàlla indi woon Sénégal te ñu jóge woon ay Niger jaar fa bëree bëri njéeréer li mën a yàq kenn xamul nu mën a toll mën nañoo fekk dëkk boo xam ne seen nawet macha allah njéeréer yi une semaine ñu lekk lépp ba mu jeex loolu mi ngi noonu ci encore gëstu yi ci borom xam-xam yi daf lu yéemale dañ naan juróomi juróom-ñaari melokaan bàyyu ma yàlla dajale na ko ci njéeréer mi ngi noonu gaa ñi naan mi ngi yor bopp fas mi ngi yor dënnu gaynde mi ngi yor luppi giléem mi ngi yor ba baa juróom-ñaar ci ay bàyyu ma mu yónni leen njéeréer yi njéeréer yi lekk lu ñu mën a am fees ñu nekk ñu ñëwaat ci Moussa même chose Moussa ñaanal lii moom bu dee da nga mën ngaa ñaan ba mu deñ ñu bàyyi bani israil Moussa ñaan mbir yi dem ñu dellu fañ dellu woon suñu borom yàlla yónni la nga xamee ne nii moom mooy ay teeñ alxummal am na ñu koy firi it ay wang wang mooy mag ñi nekk ci àll bi koy xam bu ñu duggoon ci toolu gerte jamono bi ñuy déqi dañuy ñëw bu ñu duggee ci naafu gerte bi gerte yépp la ñuy muuci wam jeex takk boo ko yëkkatee mbuxus ka sëgga ci fekk donte ne ñu bëri ñu ne mooy keeñ yi ala kulli xaal yàlla yónni leen ko mu fees ci ñoom del Moussa bii moom bu dee mën nga koo dindi moom moom il faut ñu bàyyi ban Israël Moussa ñaan mbir yi dem ñu dellu fañ dellu woon suñu borom tawal leen ay mbott yaa ngi dégg soo xoolee internet bi li lañ gis ay yenn dëkk yoo xam ne yàlla dafay taw ay jën loolu it ay vent violent yu jóge ci océan yi mooy génne ay jën di ko sànni ci dëkk bi ala kulli xaal mbott yi génn ci dex yeeg taw yeeg fees dell nekk firawna yi ak xëtt yi mu àndal kenn mënul génn lu dul mbott ñu delluwaat ci Moussa Moussa jaar fam jaaroon même chose ñu dellu fañ delluwaatoon suñu borom yàlla nattoo leen deret waa Misra képp ku ci root ndox ndox bi boo koy dugal sa ndab mu soppali ko deret boo koy dugal sa kopp mu soppali ko deret soo ko génnee mu soppi lu ko deret amuñu lu ñuy naan amuñu lu ñuy jëfandikoo lu dul lépp deret lay doon amma waa bani israil ñoom ndox mi ngi continué nekk ndox ci ñoom ñu delluwaat ñëw ci Moussa Moussa bii paa moom lii moom boo ko dindee fokk ñu bàyyi la ak bani israil Moussa ñaan yàlla mu deñ borom bi subhanahu wa taala daa di ne mi ngi noonu bu heure bu bu ñu waxee Moussa ñaanal yàlla dindi ko ba ci digg bu ñuy xam ñu daal di doon ñoo xam ne nii ñu delloo gannaaw la ñu mi ngi noonu Cheikh Ousmane ah waaw firi fi waaw firi nañ ko war nañ wax wala ma wax alayhim rijsu mooy heure bu nattu ñëwee ñu ne Moussa ñaanal bu ñaanee ñu ne daan jàll naam bismillah waaw فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون جزاك الله خيرا فلما كشفنا عنهم الرجز bañ demee ba teggi ci ñoom la nga xam ne mooy mbugalum sobe ma ila ajalin hum baaliguuhu ba ci dig boo xam ne ñoom dañ koo nar a jot ida hum yankusuun ci noonu la ñu nekk di dëpp di dellu gannaaw fantaqamna minhum noonu la ñu fayoo ci ñoom fa agraqnahum fil yam ñu labal leen ci duusi géej yi bi annahum kazzabu bi ayatina ndax ñoom dañoo weddi suñuy aaya wa kaanu anha ghafilin te nekkoon it di sàggane suñu aaya yooyee wa awrasna alqawma alladina kaanu yustadaafuun noonu la ñu donnale xeet ba nga xam ne dañ leen nekkoon di leen néewal doole mashaariq al ardi wa magharibaha allati barakna fiha lii di penku suuf ak sowu suuf ba nga xamee ne nii dañ leen koo barkeeloon wa tammat kalimatu rabbika al xus xusna ala bani israil nii la mate sa kaddug boroom gu sell ga gu rafet ga ci kaw bani israil bi ma sabaru ngiree muñ gañ muñoon wa dammar na ñu daal di mokkal ma kaana yasna'u firawnu wa qawmu la nga xamee doon na ko liggéey firawna ak i xeetam wa ma kaanu yarishuun ak la nga xamee ne nii doon nañ ko tàgg te mooy seen taax yi ñu doon yëkkati mi ngi noonu mbokk suñu boroom niñ ko waxe sànq nee na heure boo xamee ne nii ñëw nañ ci Moussa Moussa dindi lii soo ko dindee daañ gëm ne yonente bu yàlla nga dañ bàyyi bani israil nga delloo leen Palestine suñu boroom nee na su ma dindee rek ñu delluwaat gannaaw ca boo xoolee juróom-ñeenti kawtéef yàlla jox na ko Muusa alayhi salaam juróom-ñaar ya moo nekk fii naqsin mooy bisinin mooy maral ga naqsin min asamarat muy ñaareel tuufaan ñett jaraad ñeent alqummal juróom addafaadi juróom benn ak damm juróom ñaar juróom ñetteel ba moom mooy yat ba mu yoroon ak loxoom ba mu doon génne ca baatu boobu ba muy juróom ñeent fii tisi ayatin ila firawna mi ngi noonu kon suñu borom nee na ñu daal di dellu gannaaw loolu it moo tax ba waa Makka suñ mosaan ñëw ci yeneen ci yàlla bi indi kawteef tef indi kawteef nangam suñu borom mu ne wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun mi nga noonu dara teewul ma leen di jox kawteef lu dul ñu jëkk ñi dañ ko weddi woon mi ngi noonu juróom-ñeenti kawteef yàlla jox na ko firawna xeetam ñu daal di lànk weddi aaya yàlla yi saggane aaya yàlla yi borom bi nee na noonu laa leen fayoo ci ñoom labal leen mboole seen yéen ñëpp xam ngeen firaw na fa mujj te mooy bi Muusa génnee di dem ak bani Israil ba yegg ci mer rouge ci côté canal de Suez ca la leen firaw na dab ak mbooloom yàlla musal Muusa ak ni ngeen ko yàgg a jànge labal firaw na ak ni ngeen ko yàgg a jànge borom bi nee na dañoo weddi woon samay aaya sàgge na ko donte ne mbokk jullit tey dañuy wax un milliard et demi de musulmans waaye malheureusement un milliard et demi de musulmans yooyu quatre-vingt-dix pour cent ya ca ñoom xamuñu lan la seen aayay borom di wax loolu mooy danger bi gën a rëy boo xam ne dañ koy dund tey nit ñi lañ xam seen diine mooy sëñ diw nee na sëñ diw nee na ila axiri jeex na kawtee fi suñ diw karaama yi suñ diw màggalug suñ diw nangamug suñ diw loolu bu ko defee seen xol yépp ña ngi ko ak alaxira ca yaakaar bañ yaakaar ca loolu amma lan la seen borom yàlla wax te fatiha baqara ali imran ba baa téerab yàlla bi di jeex lan la ci yàlla wax li ëpp ci nit ñi anha ghafiluun toppatoowuñu loolu xamuñu ko sax neen la loolu lu am la ci kaw suuf loolee mbokk mbir la boo xamee ne nii ku nekk war na ci bàyyiwaat xel ci loolu borom bi nag nee na nii laa doonale ñañ ñéewaloon doole mi bani Israil la nga xam ne mooy penku suuf bañ barkeeloon ca mooy Palestine Cham di Syrie ak la wër côté yooyu yépp wa magharibaha loolu it mooy Misra te xam ngeen ngóorug Égypte googu Firawna yoroon ak i notable am mujj na ci loxoy bani Israil donte ne boo demee ci borom xam-xam yi wax nañ ci lu jege juróom-ñaari wax bokk na daal loo xam ne moom sikk amu ca mooy jamono yonent ci yàlla Suleymaan ak jamono yonent ci yàlla Daawud nga xam ne ñi ngi nekkoon ci Shaam ñoom ñoo yoroon nguuru Égypte encore te ñoom bani Israël lañu yàlla mujj leen def ay buuru donte ne am na ci ñu ne Muusa bi mu jàllee géej moog bani Israël gannaaw ba am na ay yeneen bani Israël yu ñëwaat ba jël lu leen neex ci nguur ak Firawna am na ñu jàpp ne jamono Yusha ibnu Nun mooy gannaaw 40 ans yi ñu def ci désert bi jamono joojee lañ ñëwaat bi ñuy jëlee ubbee Palestine ba dugg ko ca lañ ñëwaat contrôlé waat Misra almuhim la nga xame ne moom la yàlla mujj def mooy bani Israël bi nga xam ne. jàpp nañ leen ay siècle gannaaw yonent yàlla yusufa defoon nañ ay jaam ci Égypte yàlla mujj na daa di daaneel seeni noon labal leen ñoom ñooñu yàlla wëlbati leen def leen ñu nekk ñoo xame ne nii ñoom ñooy nekk ca bani Israël ca ca dëkk yooyu di ko contrôler lan moo ko waraloon borom bi nee na dañu muñoon samay nattoo ca loolu it muy wane na mbokk jurit nekk ci kaw suuf jàpp ne da ngay dund ca jàmm ba dee dem aljanna rek moo war a am déedéet su neexee yàlla dana la nattu yàlla bu ñu yàlla teg natt bu ñu attanul waaye borom bi nee na ñii daf leen def bi ma sabaru amma firawna lam nekkoon di ko dajale yépp lam nekkoon di ko tàgg yépp ci neen la mujj lu waral loolu mooy daa bañaloon borom bi subhanahu wa taala mbokk lii bu ñu ko yàlla di nettali kaw suuf ñaari mbooloo rek ñoo ko séq ba ila yawmi diin mbooloo mi déggal borom bi tënku ci ay ndigalam mbooloo mi weddi borom bi tënku ci seeni bànneex ñaar ñii nag ci combat la ñu nekk bu dul jeex lu dul àdduna tukki yal na yàlla boo leen ci hizbullah ñaka gëm ca déggal ko ca musul ñu ay ci suñuy noon wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal ñëw na ci yenn ay hadis ci mujjug jamono ñu ne temps bi temps bi day gaaw waaye temps bi day gaaw it du tey jant bi nam daan fenke lay fenke weer wi nam daan fenke lay fenke lii gaawal temps bi mooy soxlay nit ñi ñooy bari soxlay nit ñi ñooy bari ba da ngay gis ne tey dañ naan la ajjuma ak ajjuma day mel na ñetti fan la léegi ila axiri loolu moo koy waral mooy soxla yu bari su ko defee nag doomu aadama bi it ci jamono boobu war nay xool programme boppam soxla yi day bari na lool waaye lan nga ci jagleel sa diine ak loo ci jagleel sa àdduna te mooy boo demoon ci dëkk yéeféer yi vingt quatre heures doyu leen ngir seen problème mu àdduna waaye yow julli da ngay xam sa priorité mooy sa diine mi ngi noonu am maa damay tiim ndax xeer bi dama koy teg ci suuf wala dama koy yëkkati mbir mi mooy fexeel ba sa biir loxo bi nekk raay xeer bi da nga koo yëkkati téye comme da nga koo teg ci suuf soo raayee xeer bi ci sa biiru loxo su boobaa ngay masa sa kanam daa di masa la nga xam ne moom mooy sa ay loxo ba fi ngay takk sa montre boo gisee ku masa ba ca concoom it nga xam ne loolu ay ixtilaaf la wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah naam ndax ku ne yonent bi dafa ñëw dëkkal ko daal di koy jox jaamu yàlla ci ay jaamu yàlla ci diine ji loolu ala kulli xaal li ñu cay wax day mooy moom day am na garaat boo xam ne sahabatul kiram amuñu ko woon parce que ku xam sahabatul kiram fitna yi ñu am seen gannaaw commencé ci bi ñuy xool an kan mooy wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu xoolee gannaaw loolu fitna yu dox diggante sunu yaay Aïcha ki yonent bi gënoon a bëgg ci soxnaam Ali ibn Abi Talib ki yonent bi gënoon a bëgg ci frère am ñu am fitna ba xeex di dox seen diggante jafe-jafe yi nga xam ne saxaaba yi am nañ ko yonent bi feeñuwul kenn wax ak ñoom xanaa bàyyi ba mille ans après mu doog a génn di feeñu kenn di wax ak moom loolee mbokk ay mbir la yoo xam ne am na ñu koy woote woo waaye ñun daal la nga xam ne moom la ñu gëm ca it moom la bépp jullit war a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla yónni woon avant muy faatu matal na ko ci sahaaba yi nee na bàyyiwuma lenn lu leen di jegeel àjjana lu dul leeralal naa leen ko bàyyiwuma lenn lu leen di tax a dem sawara lu dul leeral naa leen ko suñu boroom bind kaste tamponné ah daal di ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaami diina di benn kaste boo xam ne diina ji mat na sëkk jeex na loolu mbokk lan moo ñu dese mooy jàng lan la bàyyi doon ay sahaabam ñu tapp ko amma kii na man fanaan si lal ma kee na man yenn si lal ma kee na man daje ak moom fii kee na man daje naan fii ku nekk indi sa jaamu yàlla boo xam ne jàpp nga ne moo gën a mat la fi sahaaba yi bàyyi woon loolu mbokk ñi ngi koy wax waaye daal mbir la yoo xam ne nii amul benn lay ci diine ci itamit ne bépp jullit bu bëgg ëllëg ba muy dajeeg boromam subhanahu wa taala kenn du ko laat la yonent bi indi gannaaw bam faatoo wallahi lazi la ilaha illa huwa maa ngi leen di seedal loolu bis bu ñu dajeeg yàlla yàlla du ñu laaj lu dul la yonent bi indi woon jamono ba muy dund ko sahabaam du ñu laaj mukk ba mu dee mille ans après lan la indi wallahi yàlla du ñu laaj loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon waaw ñu mujj ca mbokk bale rek bismillah naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ala kulli xaal dafa fàtte benn sujud ca julli gu njëkk nga xanaa moom rek ko doon julli bu doon mbooloo lay àndal lu tax fàttali wuñ ko waaw moom rek ko doon julli ala kulli xaal bu jàppee dem na ba fas rakka ñaareel ba mooy rukkoo na bay siggi xalaat ne ah sama rakka bu njëkk su benn sujud laa ca def rakka ñaareel ba bu automatiquement lay def muy premier rakkaam su paree mu daal di ci teg beneen rakka su jullee ba julleem jeex mu sëlmal daal di sujud la nga xam ne mooy baada salaam mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain